dal leen ak jàmm ci seen site bi di vip info point net bu leen fàttee abonné wu ba pare bés cloche de notification yi pour jot yeneen vidéo su dee seen publi reportage la mën ngeen ñu contacter ci 76 218 10 20 mbokki internet yi ñu dellu siwaat leen ci récap di jour suñ leen nee récap nag maanaam dellu ci ci xibaar bu fi amoon ci weekend bi ñu génn muy aljuma ci guddi jamono ji Sénégal tolloo ci ci jàngoro yi coronavirus ñëpp di moytu di làqu ñu éviter rassemblement le président de la république décrété ko di Macky Sall ba ñuy décrété couvre-feu ñu ne à partir de vingt heures ci guddi kenn amatul droit di dox wala di génn ñu tëj restaurant yi tëj boîte de nuit yi. am na nag lu xew ci benn immeuble bu nekk foofu ci Almadi ñi dippee ko immeuble Garden immeuble Garden ki ko moom di milliardaire boobu di Baba Diaw Itok di yëngu ci wàllu pétrole waaye doomam ju jigéen ju tudd Rougui Diaw moom moo yor gestion immeuble bi lépp lu fay dox moom moo koy saytu daanaka immeuble bi bi ñu gëstoo ñu ngi ko confier benn agence immobilière bu nekk foofu ca Ngor maanaam bañ def publicité moo tax mais doxantu nañu dem ba ci agence immobilière bi ñi nga nekk ci immeuble bu boobu ñoom dinañu xam li ñuy wax ñoo yor gestion boobu ginnaaw nag ajuma bi ñu génn dafa am benn xale bu jigéen bu tudd Iba Thiam moo fa faatu ci ja anam bu doy waar boo xamante ni kenn mënu ko nattable ginnaaw nag autopsie bi mi ngi ci loxo enquêteurs yi mi ngi ci loxo yoon ba tey jii ñuy wax ak yéen ay mbokkam jotoguñu ci koor gi ndaxte ñii nee nañu overdose la deewee maanaam da doon wàccu deret balaa sax muy génn àdduna ndaxte dañ doon jëfandikoo foofu lu ñuy tere muy dorog immeuble boobu nag dafa am benn appartement meublé boo xamante ni Rougui Diaw daf ko luwe woon benn xale bu tudd daam Amar kan mooy Dame Amar daam doom la ci Ahmed Amar Ahmed Amar doon président directeur euh, NMA Sander yàlla bi dara teewul jëlee ko fi weer yi ñu génn Ahmed Amar boobu nag di goro ci Youssou Madjiguène Ndour ndaxte mooy denc doomu Youssou nduur bu jigéen bi ñu tuddee Ndeye Soxna nduur bu mu am ak Mamy Camara jamono ji ñuy wax ak yéen Ndeye Soxna nduur daa wal na lor maanaam daa ëmb ba diis daam amaar boobu nag moo luy woon benn appartement meublé foofu ca immeuble garden ci loxo Rougui Diaw diiru weer bi mu ko luwee ba tey waaye li ñu jaaxal ñëpp ci jamonoy couvre-feu la ñu nekk kenn du dox kenn du génn daam amaar boobu dafa organisé woon benn soirée privée maanaam samedi vent aljuma ci guddi bi ñu génn aljuma bi ñu génn organisé woon fa benn soirée mu nekkoon fa ak ay ñoñam ba foofu la Iba Thiam ñàkkee bakkanam kan mooy Dame Amar daam Amar doomu Ahmed Amar la bu moomoon NMA Sanders waaye daam amaar boobu suñu demee ci passeem jamono yële ñi génn amoon na benn histoire ka benn xale bu jigéen bu ñu violé woon foofu ca Almadi ñu ko ci doon tudd mu doonoon benn esthéticienne boo xamante ni daam dafa leen woowoon ne dafa bëggoon ku déplacé wu ñëw à domicile ndaxte moom mënul déplacé wu bu mu leen convaincre ñu yónnee ko benn xale bu jigéen mu dem foofu pour defaral ko ay soins mais daam dafa mujj violé xale bi moom ak ay xaritam ba ñuy jiñoon ci benn xaritam sax ex boo xamante ni ma ngi fa woon ginnaaw loolu après waa institut bi porté plainte foofu ci gendarmerie Ngor mais ba tey ji xamuñu lan lay nurool suñu dellu suité ci Dame Amar jamono yële ñu passé encore indi woon na fi benn xale bu jigéen dëkkal ko ci hôtel bu nekk foofu ca Ndakaaru ñu dippee ko otel Pullman xale bi nag doon jëfandikoo drogue bi mu ko jëfandikoo ba affaire yi ëpp ko doole dafa summeeku yëre yeeg tuba yi ni ko ndeyam juree woon mu nekk ci óol bi di fa doxantu jamono jooju sax kii di jaajaataal nekk foofu di liggéey euh, ci hôtel Pullman amoon na ci problème ndax tey xaritu daam Amar la woon moo ko fa indi woon daam Amar boobu ñi leen di wax nag moo luye woon appartement ba foofu ca immeuble garden organiser fa soirée privée ajuma bi ñu génn ci guddi foofu la Iba Thiam ñàkkee bakkanam Dame Amar nag mi ngi fa nekkoon ak benn corom boo xamante ni foofu la nekkoon du Dame Amar kese fa nekkoon kan keneen moo fa nekkoon mooy kooku ñuy wax jaajaataal jaajaataal nag su ngeen déggee tur bi seen xel dina dem ci lu bare ku fàttalikul dem sa yàlla Mati Mbodj ba muy génn àdduna aussi ci anam bu mel nii ci jamonoy overdose ñi naan drogue la jëfandikoo woon turu Jaaja génnoon na ci Jaaja Taal mi fa nekkoon ci ay boîte de nuit yu mu doon liggéey foofu nekk fa en tant que RP maanaam mooy relation publique dem di indi ay clientèle ndaxte dafa amoon carnet d'adresse dafa xamante woon ak ay gestionnaire pour mu leen di indi ñuy consommer foofu ginnaaw loolu la jóge foofu ca boit boobu ñu jël ko foofu ca hôtel Pullman mu nekk fa RP Jaaja boobu nag ma nga woon ci soirée privée boobu Iba Thiam ñàkkee bakkanam ci wàllu overdose kan keneen moo fa nekkoon beneen xale bu jigéen bu ñuy naan Poupette Poupette tamit xam nañ ko ex gérante la ci benn boîte de nuit bu nekkoon foofu ca Almadi bi Mati di génn àdduna encore ci jamonoy overdose moom it turam déggoon nañ ko ci ba après lañ ko gisaat ci biti xamuñu nu affaire yi mujjee ba ñu jógee foofu am na keneen ku fa nekkoon ku ñuy naan Louti Ba kan mooy Louti Ba Louti Ba doom la ci ex président fédération sénégalaise de tir Louti Ba boobu di jëkkër ci rakku ayda Coulibaly di doon soxna ci Youssou Ndour moom aussi te jamono ji ñu nekk ci instance de divorce Louty Ba mi ngi woon ci apartement boobu kan moo fa nekkoon keneen ku ñuy wax encore neex neex nag da doon liggéey ci ay boîte de nuit yu nekkoon foofu ca Almadi mais après dañ ko dàq jamono ji liggéeyul ci benn boîte ñooñu ñoo nekkoon foofu ca appartement meublé ba di def seen soirée privée di fa jëfandikoo lu ñuy tere maanaam wàllu sinébar wàllu dorog ba dorog jooju tey moo indi overdose overdose boobu tey moo yóbbu Iba génnee ko adduna ci anam yu doy waar yoo xamante ni ñëpp a ngi koy ñaawlu ni ñuy waxee nag ni Iba Thiam génnee àdduna noonu la Mati Mbodj aussi génnee woon àdduna bi Mati Mbodj génnee àdduna tamit xamuñu histoire bi fu mu jugoon jamono ji ñuy wax ak aussi ñi ngi naan am na keneen koo xamante ni ñi ngi koy recherché kooku kan la mooy Hakim Hakim nag benn nigérien la bi ñu jàpp ni moom moo leen di fournir drogue bi Hakim nag kenn gisagu ko ba tey jii tegooguñu ko loxo waaye ñi ma leen jot a wax yépp yoon teg na leen loxo muy Dame Amar yoon teg na ko loxo muy Loutiba yoon teg na ko loxo muy Poupette yoon teg na ko loxo muy Jaajataal yoon teg na ko loxo muy neex aussi mi desoon bi ñu jëlee enquête bi dénk ko waa section de recherche bi nekk Colobane si lañu ñu teg ne kooku ñuy naan neex te doon liggéey si ay boîte de nuit yu nekk ndakaaru foofu ca almadi ñu dàq ko si lañ ko teg loxo ginnaaw loolu nag am na keneen koo xamante ni aussi teg nañ ko loxo muy amadu ñaan Amadou Niane nag doom la ci milliardaire boobu ñuy wax Diouldé ñaan moom nag ñu ngi ko jàppee en tant que recel jamono yële suñu sukkandikoo ci Libération Online jàppoon nañ ko fi ci wàllu dorog boobu ñu tuddee hachis waaye ginnaaw bu mu defee fukki fan ak juróom ci kaso bi moom lañ ko daal di libéré jamono ji nag gis nañu ko dorog bi mu ngi lëmbee dëkk bi suñuy doom ñi ngi ciy faatu ñëpp a ciy dee ginnaaw nag bi bi mu tàmbalee mi ngi tàmbalee ci gendarmerie Ngor ñu dem dénkaat ko waa section de recherche bu FEDER fii ñuy wax ak yéen dénk nañu enquête bi waa section de recherche yu nekk Colobane ginnaaw nag enquête bi mi ngi ci loxo yoon te waa section de recherche Colobane maanaam ñi xàmmee leen ci seen xam-xam ak ci seen xarañ ci wàllu enquête gëm nañu daal affaire bi dina mujj leer ci kanamu askan bi yëpp ndaxte tey Iba génn na àdduna mu doon loo xamante ni dafa doy waat ci wàllu doro te la ci gën a ñaaw mooy jamono joo xamante ni couvre-feu la ñuy décrété te couvre-feu boobu kenn amul droit dox ginnaaw bi ñu defee suñuy enquête ñun waa VIP info gëstu nañu ba baax ndaxte am na ay site yu doon bind ni ka ay dañu amoon ay laissez-passer mais bi ñu xoolee kenn ci ñoom amu ci woon benn laissez-passer ndaxte joxuñu ci woon kenn laissez-passer pour nga dox ginnaaw bu ñaar fukki waxtu jotoo muy 20 heures mais nag. ca la ñu sukkandiku am na ku leen dimbale xale yi ba ñu ñëw ci appartement boobu am na ku leen escorté indi leen foofu am na ku ñu fay mu escorté leen ba indi leen foofu kooku kan la nag ñun duñu ko wax dañuy bàyyi enquêteurs yi yor enquête bi gëstu ko xool bu baax ba ñu xam kan moo leen jàppale ba ñu egsi foofu ndaxte couvre-feu la ñu décrété kenn du dox kenn du génn jamono ju ñuy jàpp doomu baadoola yi nag di leen dóor ci mbedd yi ñuy dox ay doomu borom alal di naan ay doomu milliardaire lañu nekk di organiser ay soirée privée ci ay apartement drogue di fa nekk di lëmbee dëkk bi di rey nit ñi ah loolu moom yaakaar naa ni askan bi yëpp ñu ngi koy ñaawlu fi ñu toll nii nag ñu ngi leen di xamal ni que Dame amaar boobu sax dafa dawoon mais naka la ñu def ba jàpp ko ginnaaw bi affaire bi amee moom dafa jël téléphone am woo benn. Euh, cousin yaayam mu doon benn notaire bu mag boo xamante ni du ñu tudd turam kooku tamit bu mu ko ko waxee daf ko ne sama yoon nekku ci ndaxte jamono bi sa papa génnee àdduna danga nga ñëwoon suñu kër nga ne da ngay jël si bent lay bi ñëpp ni na la bàyyil nga ne sa alalu bàyyi la ginnaaw nga ne nañ ko xayma mu toll ci cent quarante millions maanaam téeméeri millions ñeent fukk nga ne su héritage ba ñëwee ñi génnee ko ci sa wàll moo tax mun la yoonam nekku ci ginnaaw loolu la daam Amar jël téléphone am woo keneen kooku mu woo nag ginnaaw bi. enquêteurs yi tracé appelam bu mujj si la ñuy dem kër kooku jëli ji ko ñu laaj ko fu daam nekk ginnaaw bu ñu ko téyee lu yàgg la leen wax appartement bu daam nekk foofu la enquêteurs yi dem fekk fa daam ak xale bu jigéen bu mu nekkaloon ñu fekk fa nag loo xamante ni aussi yoon da koy teree lu bare moom lañ ko jëlee yóbbu ko ca brigade de recherche kon jàpp leen ni que histoire bi fu mu toll nii maanaam histoire la boo xamante ni histoire u dee la ki fa dee muy Iba li ko rey overdose la lañ fa doon jëfandikoo drogue la ci jamono joo xamante ni dañ doon tere lépp information bi nag la leen seen site VIP info indiloon maanaam ñoom ñoo xamante ni taxoon nañ ci muy euh, Dame Amar di Loutiba di Poupette di Jaajaataal di nen di neex ñoom ñëpp yaakaar naa ni ñu ngi ci loxo yoon ñu ngi seetaan nag fi enquête bi toll ak fan la ñuy mujjee ginnaaw bi ñu te kooru Iba Thiam ci autopsie bi ci euh, enquêteurs yi. VIPinfo.net VIPinfo.net VIPinfo.net Votre nouveau portail pour découvrir toute l'actualité VIP partout dans le monde. En politique, économique, culture, santé, sport, religion, faits divers, musique, people. Confiez vos reportages et événements à VIPinfo.net, le number one des grands événements. Vous pouvez télécharger l'application sur Play et rejoignez sur Facebook en mettant juste VIP Info et YouTube VIP TV. Pour vos à plus besoin d'avoir des soucis sur l'actualité qui se passe all around the world. Votre site généraliste est enfin arrivé. Ici, l'actualité est VIP.